Euh, question Bob, c'est hyper important dafa nek en tout cas point d'interrogation le ba parce que explication scientifique qui explique expliquer réellement est-ce que la personne est morte ou pas C'est un mystère en tout cas euh, les expériences de mort imminente moy nit ki comme ni constaté constater nit vraiment cliniquement il est mort Il gis ni amatul activité cérébrale donc qui, cliniquement il est mort mais ñu jek jek rek gis ko ñëwaat tek tek tek commencé fa guen dans les logiques donc on ba que ñu expliquer qu'est-ce lan mo xew mais le problème qui se pose moy que après nit ki nga xamanteni si mom mo la situation souvent fay ñëw ñom nga xam expérience bi fi dem li

kan mo la xamal ni mo mel pourquoi bi nga gisee rek nga xamni mom la par exemple tay yow bo gentone gis bo gentone gis Omar Ibnul Khattab nga gént gis ko ni eh Omar Ibnul Khattab nga ni donc lan mo la xamal ni Omar la. No xamé Omar te xamoon Omar mel. way te muso gis Omar. muso ko gis. Mm-hmm. nga gént gis sa mambo mam bo xamni ne ko dan deg sa mamu mam la. Mm-hmm. nga gis ko rek gis ni mu mel. ñew yow wax ko ni gis na sama mam bob ni la mel ñu effectivement. Mm-hmm. loolu foo fok xamé xamee ku la lu tax nga xamni ni la buñ ko gisé lu tax lu lo xamal xamni ni mu mel. ba créer loolu ça veut dire que dañ la ko wan ca fa mu nekk nga gis ko dëgg-dëgg ci melokaan donc ñi nga xam dañoo am émi boobu souvent loolu moo leen di arrivé mhm. léegi nag non seulement dañuy expliquer ci beneen dimension bu ñu dem mhm. ci benn couloir ci benn lumière bu géant yu ñu sentir benn bonheur bu extraordinaire boo xam ni ils peuvent pas l'expliquer mhm. maanaam fi ñu nekk dañuy yëg ni c'est tellement agréable dafa neex dañuy sentir benn paix

motax tax mu perdre 30 grammes C'est à vérifier. donc ça c'est c'est autre chose. Mhm. mais li ma gis c'est que bi mom mhm. tukki xam nga nit di différencier nelaw rêves rêve ak dee. Mhm. nelaw ak dé li xam nga ki ki nelaw amatul conscience ñam ko du saf dara parfum boo tëggee du la dégg boo taxee ay image du la gis boo ko laalee du la yëg dafa mel pourtant parce que mi ngi am activité cérébrale cœur bi mi ngi tàppe sang bi mi ngi circulé ki dee nag moom yooyu day disparaître seulement gisatul mais daf ciy boole léppam day taxaw cœur bi day arrêté lépp arrêté parce que ki nga xam ne dafay nelaw deewul nafs bi mooy dem fa le vivant mooy li tax nit mais ki am émi je pense que ni mom roh bi moy mooy ko baye fa nafsi bi motax tax yëgatul amatul benn activité cérébrale mais euh mën na dellu soit deewu tout à fait moo tax am possibilité bu mën dem barzax gis dellu soit mais ki nelaw mom nafsi bi mooy dem allahu yatawafal anfusa hina mawtiha wala tii lam tamut fi manamiha mu ne man yalla may jot nafsuk ñi nga xamni ni dañoo dee ak ñi déwul ci seen nelaw manam kon nafsi bi moy dem roh bi dess fa exact donc l'expérience de mort imminente. Mhm. Euh, mën nañu ba toujours vraiment mystère la. mystère la mais lu laaj def ay recherche lu laaj gëstu la. Mhm. mais li ci gën a am solo mooy daf lay wan preuve que ni am na vie après la mort. ok àddina buy tukki yooyu yëpp nga ciy dégg elbat mhm. yàlla bis bu àddina buy tukki asamaan si day tijjeeku géej gi day déborder picc yi dañuy jaar fii yooyu yëpp dara amu ci bu àddina tukki yooyu yëpp du ci explique alaaji bu àddina di tukki. waaw ah. yooyu yëpp dara du ci am. àddina dina tukki géej gi continuer di nekk géej asamaan si continuer di nekk asamaan waaye dootul am le vivant si kaw suuf àddina buy tukki un bref instant lay doon lu mel ni xuy kamaj lay doon. ah bon effectivement. waaw ah, lu tax ñu ne nag mooy tiit mu mag. ni nga dégg effectivement yàlla yow isa sama woon shaqaat آه. وعزنت لربها وأقت آه. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وعزنت لربها وأقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت آه. إذا الشمس كيرت وإذا النجوم انكدرت جس نو يب إفت ما يب القرآن القرآن يوم الخيام لا يام دوام بعد نيتوكي على إكسبليكين très bien ok adina buy tukki waaw benn yuuxu rek lek mooy am ma yan zuruna ila sayhatan wahidatan loolu la yàlla wax du ñu dégg lu dul benn yuux benn teet kandax ñëpp ni xaddang point ba nekkul lu ñuy waaj nekkul lu ñuy préparé du ñu jóg di dem di préparé ci seen bopp àdduna buy waaj a tukki ñu géej gi d'abord ñii jaar fi ñii dugg ca jàkka yi naan laa ilaha illallah moom kay ku nekk profité di gaaw julli yooyu du loolu yàlla du leen may temps boobu. yàlla mu ne du ngeen am temps wu du ñu am temps dem def seen testament wala ñuy dellu ci seenu njaboot. mu ne buy tukki noonu la demee yàllaa ko wax loolu alxuraan la. Mhm. du ñu am temps bi. daaf lay doon benn flash tay ñëpp ni xandang dënku day leen bett dañuy surprendre benn at juma lay doon ca yoor-yoor. bu tombeeg benn jour tamxarit jour vendredi lay doon bu tombeeg jour tamxarit. yoor-yoor mooy yoor-yoor ay bont dix heures ci suba. ah bon mooy def juma lay doon. loolu dañuy wax ne la yow ma la xiyaam mooy nekk heure xadaratul juma. ah ok waaye àdduna bi tukki yoor yoor lay tukki. d'accord dix heures ci suba. jekk fekk ni ñaa ngi ci seen i activité ñii liggéey nañ ñi ngi ca marché ba mu jekk-jekk rek jibril ñëw rek xaacoo rek ñëpp ni xàndang mais nit jinne kaña mbët fas picc leneen luy dox ci biir géej li ci biir suuf si sax yi wallax njaan yi fel yi li gën a tuuti lépp lépp lu jibril wala asraf yi lépp luy dund jibril moo leen di xaaju lépp luy dund asrafil day wal buftu bisu dekki lépp luy dund rek day dee si lu léegi nag suuf si continuer di tourner jant bi continuer di fenk di so géej gi continuer di mais dotul am le vivant végétation bi au fil et à mesure mu dem ba ben instant bu demee plusieurs millions d'années jant bi fay exploser jant bi bu explosé maanaam parce que dafay vider cette euh, carburant am dafay jeex. hydrogène bi nga xam ne moom lay fusionné pour former l'hélium dafay jeex maanaam réservoir day jeex amatul doon bu jeexee léegi day fusionné l'hélium hmm. donc loolu def benn explosion masse boobu corps boo ci kaw da koy propulsé da koy sànni bu ko defee day mel ni da gis jant bi mel luy gonflé di ngant di ñëw di ñëw di ñëw bay frôler la terre suuf si dañu ñëw ba jant bi di ko frôler léegi nag avant muy egsi boobu loolu lépp luy def ci benn instant We jël ay milliers millions d'années lay avant 5000 degrés. température yi dina egg ay mille degrés 5000 mille degrés ci kaw suuf bu ko defee dina fekk ni géej gi danañ évaporer garab yi tàkk géej day mujj tàkk garab yi dañuy tàkk bépp particule ndox bu nekkoon ba ci biir suuf ba ci souterrain nag amatul benn pepp gàncaxu garab amatul ben pep bâtiment boy gis construction boy gis trace parce que même fer bi nga fi bàyyi fer fer da fay évaporer nek gaz parce que le fer à 3700 degrés day évaporer nek gaz beaucoup boko boo ko température boko ko 3700 degrés rek day waxuma la day ruy mais day ŋeer xam nga ŋeer. moy mhm. ngay baxal dara ndox ngay baxal ndox ndox bi di jeex di jeex ba jeex tak, loolu ndox bu ŋeer. waaw léegi nak fer bi ci boppam boko day baxal boko boo 3500 degrés day ŋeer. Mhm.

ci la ñuy assister nak la grande destruction iza samaun shaqat wa azinat li rabbiha wa uqad wa iza al ard muddat parce que ard bi la nek wa bi li tax ñu yàlla di ubbi suuf talal ko déplier ko day ñu nek duñ ko souci parce que yobul fek ñu yobu ñu ardu zimzim yowma tubaddalul ardu xayril ard wa samawati wa barazu lillahi wahid al qahar motax yobul khiyam ci benen univers lay am du fi univers bi parce que yàlla nee bis bu ñu échangé souf bi ak asaman yi dañ koy échanger ak yeneen ça veut dire que ñun dañuy yóbbu ci beneen kii léegi nag mu commencé nag le bicrip moom la scientifique bi wax le bicrip la grande déchirure. wala la grande destruction en tout cas dafay am benn fission. buy am. ce ne sera pas un fusion mais un fission. boo xamante ni dafay am ci les étoiles sur la matière même. étoiles yi nga gis ñu cassé galaxies yi nga gis ñu cassé dispersé wu après biddew yi cassé nekk ay atomes atomes, yi cassé nekk ay proton proton yi cassé nekk ay quark quark yi cassé ba mu le néant absolu. destruction boobu moom la ñuy wax le big rip loolu nag boo mooy fekk yow mal xiyaam ñuy taxaw ñun ñëpp ñu assister ko fekk ko xam nga fekkoon yàlla buy tukkal àddina bi dafay ñëw rek ñu gis xëy benn suba géej gi jaar fii euh, camions yi jaar fële asamaan si wàccee côté bële loolu ñu ñu fiy dund rek ñoo ko fekkee. Mm-hmm. instant boobu rek instant bi nga xam ñoo dund instant boobu rek ñoo ko fekkee. ñi fi jàll yëpp fekkewuñu te lii dafa nekk phénomène boo xam ni ñëpp dañ ko war a fekkee moo tax su dekk ba ñëpp dekki nag ci li ñuy taxaw ci ardu Zimzim maanaam ñu yóbbuñu ci beneen planète. Mm-hmm. dugal ñu ci beneen univers ñu jàkkaarloog suñu univers nag gis yàlla di ko détruire ba mu nekk le néant absolu ci la ñuy soog a xamee ni kon c'est fini dellu àdduna mëntu la nekk c'est fini léegi affronté li fi nekk rek moo fi des. ci yàlla ji. wallahi la si boobaa la nit di xam ni c'est trop tard parce que nit dana ñaan yàlla teg maa delloo ci àddina yàlla ni la àddina boobu existé tul détruire nañ ko.

lañuy peser fofu lay barzaq di amee yomal xiyam atte yeeg réglage yeeg ñu koy defee ci planète pop ay ci planète bi lañuy déké fi lañuy la ñuy taxawaat nga dig ñu la yomal xiyaam jant bi lay jege ba yuur yi di bax parce que effectivement day fekk jant bi ñëw bay frôler la terre scientifiquement c'est prouvé lo mm-hmm. donc c'est ce qui va se passer. magnifique